yaqulu siyaamu ana rabbi inni manactuhu altaam ay rabbi inni manactuhu altaam walshahwat binnahaar fashaficni fiihi yaqulu alqur'an rabbi manactuhu alnawma billeyli fashaficni fiihi fa yasfacaani mbokk julit yenent alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu yenent bi alayhi salaatu wasalaam xamal nañu yenent bi wax nañu ne koor ak alquran dañuy ràmm ab jaam yowmal qiyaama alsiyaamu walquranu yasfaani lil abdi yowmal qiyaamati sallallahu alayhi wa ne koor ak alquran dañuy ràmm jaam yowmal qiyaama allahu akbar mbokk yi ak noo bëggoon ku nu ràmm yowmal qiyaam loolu tax ñu ut ay mbir yu bëree bëri jaarale ko sunu diggante ak sunu boroom pour ràmm dangay dégg ñu ne diw moo ñuy ràmm lu tax ngeen di ànd ak diw ndax diw moomu la ñu yaakaar moo ñuy ràmm ràmm mooy ñaan njëkk loo xam ne walla koo xam ne day taxaw ci kanam borom bi di la tinu loolu mooy ramm naan yàlla baalal diw ndax diw mi nangam ak nangam loolu moom mooy ramm mooy tinu bu fekkoon ne danga am ay bàkkaar ba war a dem safara tinu googu ñu lay tinu yàlla tabaraka wa taala daa di nangu tinu gi daal lay bàyyi nga génn safara daa di dem aljanna loolu moom mooy ramm loolu nag ndeke koor ak alquraan ñoom ñaar dañuy ràmm nit yowmal qiyaam yaquulu siyaamu koor mooy njëkk ñëw ne ay rabbi inni manatuhu taama walshahwaati binnahaari fa shaffinii fiihi yow sama boroom ndeke koor ci boppam xam na ne yàlla mooy boroom yow doomu aadama soo nangoo bañ woor weeru koor la muy tekki mooy nanguwoo borom bi mooy sa boroom ndax soo gëmoon ne yàllaay sa boroom kon bu la sante nga def bu la nee wooral nga woor yow jaami yàlla bi bi nga bañee woor la tekki mooy gëmoo koor te boo gëmul koor gëmoo borom koor ay koor moom ci boppam moom gëm na ne moom jaamu yàlla la looloo tax moom koor mu ñëw ci kanamu borom bi ne ko inni manatuhu taama wa shahwaat yow yàlla waa ji taxaw sa kanam man dey maa ko tere woon lekk man dey maa doxoon digganteem ak bànneexam yi ci bëccëg yi koor allahu akbar inni manatuhu taam maa ko tere woon lekk maa ko tere woon naan wa shahawaat maa doxoon digganteem ak bànneexi bakkanam lépp loo xam ne neexoon na ci bakkanam nga xam ne bu ko defee weeru kooram yàqu yow yàlla man dey maa doxoon digganteem ak loolu ba daawul lekk bëccëgu koor daawul naan daawul def ay bànneexam kon yow yàlla noonu ma ànde woon ak moom ci àdduna tere ko lekk tere ko naan tere ko ay bànneexam ba tey jii mu faatu taxaw ci sa kanam am yu bare yu mu mànkle yu mu waroon def te defu ko ay waay yow sama boroom fa saffi nii fii maa ngi lay ñaan maa ngi lay tinu nga jéggal ko nga baal ko ndax nga dugal ko aljanna ah bi koor waxee loolu ba pare taxaw nee yaqulu alquraan alquraanul karim daa di ñëw daa ne rabbi manatuhu nawma bi leyli yow yàlla waa ji su wooroon bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi ay bànneexi bakkanam man mii day guddi gi maa ko tere woon muy veeye di seetaan tele di seetaan ay xumbal di lambar lambari ci mbeddi di dox man day yàlla maa ko tere woon nelaw guddi gu nekk ci man mii la daan nekk di naafila di ma jàng wala mu gàddu téeréem di ma jàng di ma nafar di jàng ba guddi yi jeex waaye yow sama boroom man maa ko tere woon nelaw maa ko tere woon doxi ay soxlaam guddi maa ko tere woon nekk ci waxtaan kaay yi maa ko tere woon toog ci kanamu télé bi maa ko tere woon toog ci kanamu ordinateur bi maa ko tere woon lambar lambar ci marché yi maa ko tere woon maa ko tere woon maa ko tere woon kon yow sama boroom fa shafi'ni fiihi maa ngi lay ñaan nga ko nga tinul ma ko ay waay yàlla bàyyi ko baal ko allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi su boobaa nag fa yashfaani ñoom ñaar yàlla daal leen di nangul koor ak alquraan yàlla nangul leen waa ji daal dugg aljanna mbokki jullit kon li gën a rëy li ñu am ci weeru koor ndeke bu ñu wooree ba koor jeex suñu faatoo koor dana nu bu nuy jàng alquraan guddi ak bëccëg suñu faatoo alquraan dina nu tinu wa kunna natma'u man yashfa'u lana yawma alqiyaama doon nañu xemmem guddi ak bëccëg ku jàpp ci sunu loxo ci sunu kanamu boroom mu tinul nu yàlla mu ne yàlla baalal diw mii loolu bëggoon nañ ko torop alquraan a ngi nii koor a ngi nii def nuy tinuli ëllëg yowmal qiyaam ci kanamu borom bi koor mooy ñëw ne yàlla baalal waa ji maa ko bàyyi woon lekk bàyyiloo ko naan bàyyiloo ko ay bànneexi bakkanam alquraan ñëw ne yàlla maa ko tere woon nelaw guddi allahu akbar allahu akbar yàlla waa ji maa ko tere woon nelaw guddi kon nag kom bàyyi woon na nelaw ngir man koor na bàyyi woon na lekk ngir man bàyyi woon na naan ngir man bàyyi woon na ay bànneexi bakkanam yow yàlla noo ngi lay tinu ci sunu mbokk mi yàlla ne leen baal naa ko koor ñëw jàpp ci loxo ndeyjoor alquran ñëw jàpp ci loxo càmmoñ ñu daal di ubbi bunti aljanna waa ji daal di dugg allahu akbar waay waay mbokk jullit yi yonent bi jàngal nanu de ñun bu ñu muccul ëllëg nu wallaahi ëllëg ku yàlla duma yow la bul yedd kenn bul wax kenn dara ndax xéewal gu tol nii koor jàng alquraan yendoo woor bu guddee nga jàng alquraan wala nga yendoo woor yendoo jàng alquraan wala nga yendoo woor guddi nga jàng alquran nga faatu koor ñëw jàpp sa loxo ndeyjoor alquran jàpp sa loxo càmmoñ ñu tinu la ci kanamu yàlla yàlla may leen tinu gi yàlla baax yàlla moo baax xoolal koor ñëw taxaw ñaan yàlla yàlla may ko alquran ñëw taxaw ñaan yàlla yàlla may ko allahu akbar xoolal mbokk yi lii nu mu réyee koor taxaw ñaan yàlla yàlla may ko alquran taxaw ñaan yàlla yàlla may leen kon bu sayyiduna muhammad taxawee ci kanamu yàlla lan la ñuy am nañ leen góorgóorlu weeru koor weeru jaamu yàlla moo ngi ñëw ay fana ci des nañ ko waaj nañ ko waaj nañu tëral suñuy programme nañu fexe ñu yokk ci koor gi nanu fexe ñu ko ñu yokk nañu fexe ñu tuub nañu fexe ñu génn ci caaxaan yi lii réew mi di def tey naan dernier samedi dañoo war a mooy yàlla dernier dimanche dañoo war a mooy yàlla loolu du diine ab jullit bu weeru koor di ñëw day tuub dooteer weeru koor ay bakkaar tey dëkk bi yépp ay soirée la lu tax suba la samedi weeru koor ñetti fan a ci des nañuy def suñu dernière soirée yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu